mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla andi nañ ci bis boo xamee ne bile bés la buy dellu si ci jamono ju nekk ci ñun at mu nekk mu ñëw ñëwaat bés boobu mooy lan yàlla mooy indi koor nen wóor leen yonante bi wax ñu nan lañuy wore nan lañuy wore sumu li ru'yati al-hilal wor len parce que da ngeen sentu wer wi gis ka wa aftiru dok len lutax ngeen di dok parce que da ngeen sentu wer wi gis ko fa in ghumma bu asaman ci amé nit ba mënu leen gis wer wi fa akmilu it iddata shaaban salaasina yawman kon na ngeen mottali weeri fan weeri fan loolu moo tax ñu war fan weeri fan séentu nañu gis ñu woor nañu fan weeri fan te nag ñuy wax nit ñi ne koo koo bokkulul moom sowu jant mënuloo wóorandoog moom jant mënuloo wóorandoog moom mënuloo moom lu tax parce que koor yeggul timis bu fajar xaree la ba jant bi so koor yeggul timis bu fajar xaree la ba jant bi so bu jant bi sowee rek dañuy dog fa la koor yem yàlla nag bi mu ñu andilee koor ñun ci nga xamee ne gëm nanu ko gëm nanu ne mooy yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñu ci muhammad digal suñuy sëriñ su baax si digal ñooñu ko loolu yëpp def nañ ci li ñu mën ba yëg si ci bésu tey bii mu nekk bés boo xam ne dafa araama or kenn waru koo or bésu tey kenn du ko wor ku ko woor doo am tuyaaba bàkkaar ngay am parce que yàlla moo ne bu ci kenn wor woor nañ ko def nañ ci liñ ci war a def génne nañ ci sunuy mooru koor kon tey jii lan lañu def ci tey dañu ñëw julli si julli si yàlla lu mu def lu nekk rek dafa am lu tax ñun ñëpp dañu war a xam lan moo tax yàlla digle julli ginnaaw bi ñu gëmee ne mooy yàlla gëm luy lislaam gëm julli juróom gëm dem màkk gëm woor gëm joxe azaka lenn lu ci nekk dafa am lu muy dox julli li muy dox mooy ñun ñi toog ci jàkk ji yëpp ak feneen fu ñu jullee fu mu mën a doon fii machine kuy julli ku nekk booy kàbbar doo wax sa làkk allahu akbar ngay wax kuy jullit ku mën doon ak foo mën a doon jullit booy kàbbar allahu akbar ngay wax soo waxee allahu akbar ba pare am na ñoo xamee ni dañ naan tekk ba mu yàgg ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin lu tax parce que bismillahi rahmaani rahim ñoom dañ ko dul wax ci kaw waaye bismillahi rahmaani rahim ëpp na nit di julli te du ko wax liif gi nekk ci bismillahi bokk ci wa tuwilal baau bi bismillahi taazuman wa rifatan lillahi liif googu ñu teg si bokkul ci baa bi màggal yàlla yëkkati yàlla xamne amul kenn ku mu yamal mom kenn rek moy ki mu doon motax ñu yëkëti liif gogu te lépp lo xamne dañ koy commencé te ko mën ci ñu ko bismillahir rahmanir rahim dafa melni ku jënd xar te amul genn mu nekk xamne na am xar likoy rafetal moy genn ba kon képp koo xamee ne ki da ngay julli taw waxuloo bismillahi rahmaani rahim teguloo ko fenn te boo demee béykat na nga bokk ci tarixa cheikh dañu wax ni booy jàng fatiha bi sax bëgguñu nga tax ne wax ne bismillahi rahmaani rahim taxaw dañu bëgg nga wax bismillahi rahmaani rahim milhamdulillahi rabbil alamin soog a taxaw milhamdulillahi rabbil alamin nga soog taxaw liaison boobu ngay def sooy julli léegi kon nga wax bismillahi rahim yi déedéet bismillahi rahmaani rahim milhamdulillahi rabbil alamin nga soog a taxaw parce que dafa am lu muy jëriñ ëllëg ci àllaaxira kon képp koo xamee ne ki ci tarixa bi bokk nga bokk loolu war nga ko booy julli noonu nga ko war a di jànge ak lan ñu ne ñun ñiy toog fii ne dañuy julli dañu war a ragal yàlla asalaatu tanha anil fahsaai wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi liy dindi personnalité nit li dindi dignitéem luy tax fu mu wax ñu ne ñëpp daw lu bon lu salte lu mu mën a doon xeex añaan soxor yooyu yëpp kuy julli waroo ko def képp koo xamee ne yaa ngi julli te mën a yéene yëkkati ngànnaay dóor ko nit wala wax lu bon jame ko ci nit tey nga li ngay wax lépp teguloo ko fen ci sa xelaatu bopp nee nañu rek ngay wax loola ku koy def julleeguloo kuy julli du fen kuy julli du añaan kuy julli du soxor كوي جوني دا فاي ام ريسبكت واي واي جورام لوتاخ داخ يالا مو خني وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنارما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا باي اك ياي دو دوم مانا تولو فمو مانا نيك لوكا يالا جوخ daraja dafa war a màggal baayam ak yaayam waru leen a dayadil ba am keneen ku ko jaral leneen lu mu jaral lu ko jaralul ñaari way juróom ab sëriñ bu mu mën a doon boo ko lan topp di ko defal li nga koy defal na fekk yaa ngi koy defal sa way jur ba pare amu fi benn sëriñ bu am aljana aljana benn sëriñ amu fa place sëriñ lan la mën a wax taalibe li ñuy wax def ko pour bu ëllëgee nga mën soobe parce que moom xamul fan la jëm ëllëg ku xamul fu mu jëm ëllëg mënul wax kenn ne dinaa la yóbbaale kon kenn ku nekk yaay yóbbu sa bopp fa nga jëm ëllëg te yàlla mën na baale bakkaar bu nekk ba mu des bakkaar bokkaale ku jël yàlla utal ko yàlla comme moom yàlla mënu ko baale moo tax mu ne qul wa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wax leen ne yàlla kenn la allahu samad mooy teen bi dul dëy ku fi yor loo mën a yor lu mu ma toll yàlla la ko jox te la muy jox yépp amul lenn lu muy wàññi ci li mu yokk dara lu muy wàññi amu ci te daf ñu yoon yu bari yoo xamee ne kenn ku ci nekk war nga cee mën a gëme yàlla ñun ñi ñëpp dañuy judd ku jigéen dañuy jur bi ñuy judd ñuy bopp mooy jiitu ku nekk xam na ne bopp xajul ci kanam ku jigéen bop xajul ci kanamu ku jigen te fa lay jaar gen te moy jëkk gen kon ki nga xamé ne moy tax ñu judd du kenn mom la bu doom juddo ki koy xiirtal ci ñu jox ko weñ mu xëcc nam du kenn mom la du bay du yaay koku bo ñuy top di ñu top di ñu top ba ñu majeur mu ne doom bu amé juróom ñaar yaat papam buy julli na andax moom bu démé ba am fukki at bu wu na kay duma duma dank lu tax parce que dañu bëgg mu tàmm bi muy ndaw te it bàyyi amul warul am sañ-sañ dem ba naan sama doom mënatu mënatuma ci moom dara doom feeg bàyyay baayam baayam dafa war a taxaw ci ni mu baax te nag li xew ci dëkk bi dafa mel ni xale yi amatuñuy ndey amatuñuy baay ay jàmbur ñoo leen di génne ci mbedd mi ñuy def lu kenn xamul lu mu doon kenn xamul li ñuy def lu mu doon seen i ndeeg seen i di dund te loolu yëpp responsabilité boo xam ne bu ëllëgee yàlla du ko laaj kenn seen woy jur la koy laaj moo tax mu ne doom na topp woy juram ginnaaw bi mu nangoo ne yàlla mooy yàlla nangu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni bu demee ba nga xamee ne kër gi sax moo ko yor mooy indi dépense mooy joxe lu nekk nee na buy wax ay woy juram na wax ndànk bu mu wane benn yoon na maa yor kër gi oof bu ko doom wax benn yoon baay bu ko doom wax benn yoon yaay doom bu mu gëdd benn yoon papaam doom bu mu gëdd benn yoon yaayam moo tax ñi ku xàmmee ba am nit koo xam ne kii woy juróom dafa génn àddina su mënee jullee néew danga nga naan ko jiiteel sa yaay wala jiiteel sa pap lu tax parce que bu ko jiitee yàlla da koy yóbbu aljana direct parce que yàllaa ko wax yàlla moo ne waqul lahuma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira yàlla yërëmal sama baay ak sama yaay nañ ma daan yërëme bi ma nekkee ndaw kon doom bu taxawee ci kanamu pàppam di ko ñaanal yàlla lu mu ñaan yàlla jox bu taxawee ci kanamu yaayam di ko jullee lu mu ñaan yàlla defal ko koo xamee ne kii loo ñaan yàlla def ko war nga xam say waajur ñooy ñan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 bu ñu koy wax ne diw dafa am xam-xam mooy lan résumé la lu ñu lu ñu résumé la résumé bi lan la xam na xàmmee na mag ñi daawuñ jàng lu dul jeex du xaaj lu yem rek lañ daan jàng mais topp yàlla lañ daan topp yàlla ba yàlla di leen defal loo xamee ne lii lu ñu def mu dëppoog lu yàlla bëgg bi himmatin aw bi xaalin loolu la leen yàlla daan joxe li leen daan jox te nag loolu ku koy pour nga am ko da ngay jaamu yàlla def nawle say morom te gis ngeen képp koo xamee ne yeggaguloo ci taxwallahi doo kenn te nag nuñ koy firee mooy jomb jomb naa nangam jomb naa pour nit yegg ci foog dafay gëm yàlla gëm yàlla gu loolu mooy tax mu mën a am jomb te nit bu jombul dara du ko neex def moo bàyyi may ñooyam yal yàlla defal ñu tawfiq yal yàlla dolli ñu sutura am na nag loo xamee ne waxoon naa ko nee naa woon ne ñiy julli si yëpp bu nekk booy ñëw na nga ni mille francs xamaa ni ngeen ko joxe ngeen comme dét gouvernement bi ñiy julli si bokk ci gouvernement bi yëpp nañu ndiwàlle seen wàll nañu tànn kenn jox ko ko sama jumaa ji xooluma ku joxe ca Tiwaawan sama ci sama jumaa ku ci julli rek ma jiital nag ma jox dara ma boole ko ci li may joxe yóbbu léegi ñu ñaan dégg ngeen li ma wax bu baax Nous ñu président de la république ministre de l'intérieur Ambassadeur yi fi nekk ñu ngi leen islamique le directeur bi ñu koy nuyu collectivité grand serigne ak ñi àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak man ci laa bokk grand mosquée ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ñaanal ah sama xaritu bopp tam maa ngi nuyu yéen waaye man dama am xarit boo xam ne maak moom ñoo dëkkaale woon ca ndakaaru mu dëkk ci abdou karim bourgi bi mu dëkk ci rif laris muy cheikh tidiane gaaju xaw ma ndax ñëw na am déet maa ngi koy nuyu maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ñu tawfiq kon ñu jàng salatul fatiha fatiha kursiyu qul wallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas salatul fatiha yàlla may ñu ñun ñëpp ñu ñëwaat deen fekk julli gi te li nu bëgg te mu gën ci ñu yàlla defal ñu bismillah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 وعدتنا باجابته فقد دعوا لك كما امرتنا فاجبنا فاجبنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الفرد والله تبارك يا رحمة الله انا بصلي على سيدنا يلا يلا نن كبك جام يلا لا تي يلا بوله كبغول جام لي كبغ تي لو بون يلا يلا خبك تي سكو السلام عليكم ورحمه الله Voilà, nous venons donc de suivre le serment de l'imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar, Aline euh, Moussa Samba.